Eh, bisimilahi rahmaani rahim ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi fii tey ci kër sëriñ Bachirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir eh, mu yore kàddu yoonu murit de muy gàttandu gan gu mag gu jógee république islamique Mauritanie di suñuy mbokk di suñuy xarit mënees nañ di bokk ci ñu gën a jege moom mi ngeen gis ñu taxawal mi ngi bokk ci protocole njiitul réew Mauritanie moo ko fi yoon ni am na délégation bu koy fekk ci suba. waaye moom moo jiitu si àndaale tiraanga yi comme ni mu ko baaxoo defee euh, wax na lu am solo nee na jëw président bu leen di yéen bokk na ci leen wax ne leen lu mën a xew Touba de ñoom buñ teewut war naa jaaxal ñu bari ak nuñ mën a màggalee Touba ñoom lu mën a xew ñoom nañ ci ànd ak ñoom moo tax moom mi moo ñëw léegi biñ ñëwee nag xam ngeen ne yoon wi dafa sori moo tax faaw sëñ sëñ Muntaxa jox ndigal sëñ Bass mu ñu jébbal ko gileem yi incha allah taala ngir mën ko wàcce lu ci des nag beneen délégation officielle dana ñëw suba bu jógee foofa incha allahu taala ñu àggale waxtaane yi si moom lool kon mooy solos ndaje mi tey jërëjëf. ngeen di dund màggal gi en temps réel académie minan ngeen di si onde ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro 75 la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi mu xewali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne Modou Bousso Dieng Canal Plus Store Touba ci 28 décodeur à 1000 francs ak sa ak Serigne Mohamed Samb soldaru Serigne Touba ca xam-xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir roy sëñ bi